tey jii suñ suñ jëmm moo toog foofu. Mhm, mhm. waaw noonu noonu noonu la noonu la toll ah, doon doon suñu rakk suñu rakk. Mhm. Ah, ah, di ànd ak ñoom teewul dañuy dañuy dañuy dañuy déglu xelam xalaatam. li ma suñ borom di jiital jiital ci bopp mbooloo mi ñu àndal. bëri na lu may def loo xam ne bu ma koy def moom moom laa ci taatal xelam. lu ma ci orienté rek moom ma ci orienté rek boobu laa ci jaar. Euh, nag doyloo gu ma doyloo xelam ak xelam mu rafet. Mm-hmm. Euh, xam naa ci moom tam dal gu toll rek. Mm-hmm. Euh, bu nekkee ci liggéey bi. ma mm-hmm. liggéey ba ci nekkee ñaare yu bëri dina la jaar liggéey bi. waaye am na dal dal gu gu mat ci maanaam bu demoon ci baax tey jii ay ay ay problème am fa ci diggante ñiy jàngalu xañ na ak. ak rajo yi waaye dina am dal boo xam ne hmm. dina fexe ba ba ba ba ba liggéey ba liggéey bi mag te te te dañuy mujj ñoom ci seen bopp sax dañuy am kersa ndax dañuy xam ne kii ñu seqal liggéey bi hmm. ah du du du du n'importe qui du koo xam ne rek hmm. dafa ñëwee yor waaye waaye responsable la waaw ah, te ñi muy ñi muy xale yi muy àndal ah, dañ leen di wax ba tey di leen di leen copier ci jikko yi daam ndax yor na jikko joo xam ne xaar xaar xaari nit ñi ànd ak sax loolu la ko téye loolu la ko téyee loolu nag dimbalu suñu borom la dëgg ñu ngi koy ñaanal suñu borom gën koo taxaw bu baax te te jàppale ko ndax jamono yee passé rek maa ngi ci waxtaan ak say xarit mhm. di ma wax qualité qualité daam ci liggéey bi mhm. di ma wax ne ma daam toll na sëñ Tuubaa seere ne lii ma wax nii moom ma ko wax mu ne ma daam toll na ci liggéey bi koo xam ne mhm. ah, gisuma kenn ku ci toll ci ñuy animé ndax. Mhm. daa ma ndax xam nga loolu lu ko waral ma ne ko déedéet mu ne ma yàgg gi mu yàgg ci liggéey bi ak ak waxtu wu nekk mu di ko def. Mhm. ba pare xel ba pare mu def ci xelam. Mhm. moo waral mu mu xam ci loo xam ne ñi ci nekk loolu sax xamuñu ko. ma bu ma bu may jàng ci rajo yi muy yi par rapport ak bu ma jàng ci yeneen rajo. Euh, euh, du du sax xaaja ko. loolu nag loolu nag tawfeex la. waaw ndeysaan ndeysaan. loolu tawfeex la te te néew ma yëpp amuñu ko waaye yombul daal. ndeysaan ndeysaan waaw. suñu daam ñu lay jaar bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf sëñ Mamor jërëjëf. waaw di am dëkk di am dëkk. ñoo ñoo gën a kontaan ci yow lool macha allah danga baax rek. waaw eh, kàddu yi am na solo lool. Mm. gaa yi dañoo nekk ci ginnaaw oto waaye ñoom ñëpp amoon nañ yéene yi maanaam ah, ah, wax seen contribution ñoom itam dañ jógu mii ma dendal ci kanam oto bi muy safoor bi mm-hmm. mooy mi ngi lay jaar mi ngi lay yóbbante ziar waaw waaw waaw. na nee na am na nee na am na mbégte lool ci jotaay. ndeysaan ndeysaan macha allah macha allah macha allah. sëñ sëñ sëñ Koso moom la dalal nag day kenn ci man. waaw waaw wax na ko léegi kenn ndeysaan. waaw ah, ah, day day sama wëllëre. dëgg la waaw xëy na bi ma ko xamee yàggul waaye xam naa ci moom di ko joo xam dëgg yàlla jàppaat naa ko bu baax a baax a baax. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la. Ah, ndeysaan sëñ ko sama moom nit ku baax la koo xam ne kenn Mamour mhm. waaw dégg nañ loolu ñu ngi siyaare baax suñu Basiru Sylla ñu jëri seen moom ci suñu wala réew yàgg ndeysaan baax lool waaw ndeysaan parce que kenn te yaru te am te am te am maanaam mhm. am laabir lool ci liggéey waaw dëgg la dëgg la waaw ak foo mën a jógee boo ñëwee loo mën a yor di ko defar boo ñëwee mhm. daa la ko defaral ni ni nga ko bëggee te du la sonal genn wàll waaw moom ñu ngi koy ñaanal moom tam ci barke xasida yi ñu am suñ Tuubaa gën koo taxaw baax nañu lool sëñ Mamour. ndeysaan sëñ Daam Ñang mi ñu dalal de. waaw day ku yàlla baaxal te muy àndak ak uh, sëñ Xaadim Guèye. waaw. waaye borom rajo yi daal am na am na lu ñu may yóbbante ci yéen. waaw ci maye gi ngeen di maye ngont yi di maye waale borom rajo yi. <laughs> nga loolu xam nga loolu rek nga sax. xam nga la bu ndaw rek boo xëyee daa bootu ci liggéey bi ñuy def. <laughs> Ah, waaye waaye ñoom borom rajo yi ñun ñoo dàqali woo jàng di ñun benn la ñoom génnuñ ci ñun ñun génnuñ ci ñoom. Ah. waaw <laughs> ñoom fi ne nii mënuñoo mënatuñoo génne seen bopp jàng di xasaay yi benn lañ. benn liggéey bi ñuy def ñoom ñoom ñoo ko ànd ñoo ko <laughs> ah? ñu ne. waaw. ñu bisi bu bu ba amatee prin bu kuñ ko tuddee waaw nañ koy teel a wax borom rajo yi. nañ ko nañ ko nañ ko nañ koy teel a wax borom rajo yi ne diw lañ ko tuddee jox ko numéro kooku. waaw amul amul problème amul problème. wala xeer woog yaa ko moom xanaa. loolu loolu moom loolu maa xam naa sax waaye de man lay sànni xeer de. yow lay sànni xeer de. man lay sànni xeer kontaan nañ lool amul dëgg nañ lool. Mm-hmm. jërëjëf ah maa gën a bëgg maa gën a bëgg. jërëjëf baarakallah nuyu bi nii. baarakallah jërëjëf da nga dégg rek yàlla xam ne bëgg dëgg yàlla. jërëjëf jërëjëf macha allah macha allah yow moom dugaale nga sëñ ma nga waaw yow moom boo xasee dugg rek mel na sëñ xaalim dugg na dugaale nga ndax eh, xam naa waxtu wi daa fekk muy dallu mm. waaye bu dallu woon dana dugg loolu loolu waaye ginnaaw yow nga xam ne yow la yàlla jiital ci ci ci bopp kuréel gi mm-hmm. yow boo duggee rek sëñ xaarim seen dugg ñi mhm. nga xam ne moom tamit euh, lu bari ci ci moom la ne lépp mat na waaw dëgg yàlla kontaan kontaan trop macha allah mhm. ok jërëjëf jaare ma gaay bu baax a baax a baax dëgg waaw ah, dañ ko dégg incha allah waaw incha allah rabbi jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ mhm. moo jiite kuréel gi sëñ Xaadim Gueye gi ñoom itam ñu mënoon ñu mënoon a diis lool te woyof ndax jànkatu xes yi ku nekk xam na ñooy jàng jàng ñooy jàng xasaay sëñ Tuubaa yi mhm. te sëñ Tuubaa amul woon lu mooy xasaay di kon ñoom ñu koy yëkkati mhm. ñu di ko dégg di bég mhm. te li ñu yor ci ay soppe am na ci ñuy génn ci télévision yi waaw dëgg la de di yëngal te li ñu yor ci ay